à CTV, la chaîne des patriotes. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des informations en discontinu sur le web. Abonnez-vous. Comptant poli parce que nit nag da nga koy ci comme li nga xam ci moom man ma Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi ko xam 2012 avant 2012 ba ñu wut mais ba ko Macky joxee kudd Abdoulaye Diouf Sarr jour boobu nomination di génn première émission bi mu njëkk a def man la ko def 2 ma xam ko ci courtoisie ci correction billahi wallahi taala looluy dëgg nit da koy seddal jikkoom d'ailleurs sax doo ko dégg sax ci ay wax yu déplacé wala yooyu 2014 ba Khalifa Sall di leen làbbali ñoom ñëpp fii taxaw Ndakaaru moom rek moo fi sono woon la résistance à Yoff fàtte xaju fi ah aussi fàtte xaju fi fàtte xañ moom rek moo fi sonné woon la résistance en direct boobu maa ngi deux laa ko jël ma jël ko en direct deux li ma ko wax baar yaa ngi fi image yaa ngi dama ne ko vous êtes là le seul responsable de l'APR qui a résisté à la vague déferlante comme nous yi Yewwi def rek da taxaw Ndakaaru vraiment vous êtes courageux vous avez mais xam nga loola rey loola rey Diouf Sarr naagu ku naagu daagu ku daagu ñu romb la wàcc la fa auto glorification dégg naa la nga dem ba ne nga ne yow booy nelaw sax booy nelaw ndax dañ lay yee jël la nga la Abdoulaye kaay toog yow yow xale bu am 34 ans moo la fa gagné 34 ans xale bu ndaw un mois avant un mois avant maa ne la wax nañ ma ne man attention à ce gosse qui est à man su xamee un mois avant sama benn xarit piccul ñaaw bu nekk France moo ko xam bu ma ko envoyé un mois avant ne ma Pape Alé ma naam mu ne ma xale bii ñuy xeeb yoof mu ne mu ne mu dina dóor dina dóor Diouf Sarr ba toog ci kaw ma ne ko nga ne mu ne ma suivre li ma lay wax ci biir nag ñuy xool di xool di xool di ay yi ñu doon ay instrument nga xam ne dañ ko doon di jaay di joyanteeg yooyu xam ne Diouf Sarr waxuma la mairie Dakar sax mais li kaa xamoon ne Diouf Sarr dinaa benn affaire am na nit ñoo xam ne maa la koy waatal ci alxuraan fi ñu toll ci réewum Sénégal ni leen Sénégalais yi suuree ni leen Sénégal yi jéppee ni leen Sénégal yi xeebee bëgg ñu génn dans le jeu politique bëgg ñu tëj seen làmmiñ ci luy xew Sénégal nit ñooñu bés bu ñu tuddee say mbir rek Sénégal yi dañuy radicaliser wu pour gën la sanction te yàlla ñu ma tim xam naa ne am na nit ñoo xam ne soxloo woo leen woon mënoon nga def sa campagne duñ tudd seen duñ tudd du duñ tudd li nga xam ne moom moo moo moo moo xew duñ tudd sa campagne dara tey waatal ci alxuraan ne fii ni leen Sénégal yi suuree guddi yu toll ni leen Sénégal yi jéppee gudd yuñ toll même boo nekkee nit ku baax bu ñu waxee seen mbir di la faral rek sénégalais yi comme jéppi nañ ñooñu dañ lay gën a sanctionné radicalisé wu loolu moo la dal na ñoo xam ne soxla woo la ci campagne bi nga war a dawal na nga defar ba gañ a def porte yu bari ñu lay teg dajante naka cortège kër kër kër na waaw lii moom sa booba gaa yaa ngi proximité rek say gox Dakar ay dank fanaan rax ci dolli xaalis bi nga dugal ci presse bi <laughs> la famille gis bi ma leen yónnee sànq xaaral ma joxaat leen beneen euh, damay ree ba tax sànq dama ko doon liir ñu lay defal ay tiit nga xaaj bu bari nga dugal ko ci presse bi ñu lay defal ay ngën ngandi tiit may reetaan billahi may ree ma ne noo oh Diouf Sarr ñu ngi lay dóor ngandi tiit ana ma la gis mel ni Diouf Sarr rek moo nekk ci campagne bi Diouf Sarr code de populaire Diouf Sarr déjà maître de la rue Diouf Sarr lan respire la confiance Diouf Sarr lan déjà maire averti Barth <laughs> Diouf Sarr déjà maire averti Barth les sondages placent Diouf Sarr en tête ak beneen benn mel ni journaux yi léegi Diouf Sarr quotidien la tudd man may xool di ree rek ma ne ñii xamuñu xamuñu ban heure a jot même journaux yooyu tey jii su ma la lire laatee luñ bind yeewi la razzia yeewi la le pouvoir ma ne ñii dañ koy dóor mais Diouf Sarr xamul ne nii dañ koy dóor dóor yi métti métti damay xool titre yi mais damay ree Diouf Sarr mon histoire avec les femmes Diouf Sarr lan ci Abdoulaye Diouf Sarr au pas de charge ma ne non ma ne non ñi xam ñu ban heure a jot mais xaaral rek yàggatul ma ree un sondage place Diouf Sarr en tête mais comment un sondage peut placer Diouf Sarr en tête te Diouf Sarr a amul sax moo kii sax amuñu diita ngaas lu bari la ko batt comment un sondage peut te placer en tête <laughs> di di gëm gëmloo naaj naajal sa photo yi photoshop ko ngay melax mais ça me ça me la force tranquille Diouf Sarr la force tranquille dama di lee ma doon ree kon ba gis lii ma ne non loolu mooy indi lan moo indi tey jii yoof bi nga xam ne sax da ko gañe woon dañ la fi nga yaakaaroon yàlla dafa bàcc bàcc xale bu ndaw trente quatre ans le plus jeune maire yàlla dafa bàcc cooñaa dooma doom bàyyi moo ko wax depuis pare un mois avant mu ne ma doom bàyyi ma ne ko naam mu ne maa ngi lay yónnee dossier booy bi suis ça journaux yi di ratatat di wax rek un sondage place Diouf Sarr en tête ma ne leen waa baax au pas de charge Diouf Sarr ah un week avec Diouf Sarr ma ne leen une boo xam ne doo ci gis Diouf et 7 jours sur 7 des informations en sur le web abonnez-vous.